Yelal nag parti la boo nga xam te ni euh, comme son nom l'indique la démocratie bi ñuy wax maanaam nekkul si yemul si discours mais dañ koy doxal ñu suñu biir part te loolu ñu bëgg mu dox si réew mi te li ñu yëkkati mooy Sénégal jëm kanam te lu ko jëmale kanam mu ngi fi bu dee ay ressources humaines yu compétent yu ak yu am qualité mu ngi fi. bu dee ay ressources aussi financière mu ngi fi bu dee ay ressources aussi également euh, climatique mu ngi fi parce que kenn gënuñu kenn gënuñu suuf donc suñu parti aussi ñu ngi ko teg si ñetti ponk wax nañ ko benn bi moom mooy euh, discipline moom mooy yar bi si moom mooy égalité mooy yemale comme son nom dikk benn bi moom mooy yokkute jëm kanam. ñun suñu objectif benn mooy lan euh, d'abord. les élections législatives yu ñëw ak locales parce que dañu bëgg ñun wane ñun suñu valeur nu ñu mel loolu pour ñu wane ko il faut ñu am ay ay député yu wane ay yu am taxawaay yu am solo si assemblée ba am ay maire aussi yoo xam ni ñun valeur yu ñuy défendre maire ya ñuy yor dañ koy wane su ko defee nag lay ñëw 2029 mbaa cinq ñun mën nañu taxaw avec avec avec avec un programme mais aussi avec un avec un bilan sans être sans être président le président bi ko candidat yi recalé seet demee seeti génn na ni conseil constitutionnel lu mu gis ba décider ba lii la lii la keneen mënu ci dara te comme que loolu am na ñun ñëpp nañu dem toog ñi war a campagne dem campagne pour ñu xaar élection voilà donc gouvernement ni donc actuellement war nañu sax wax waxu wa waxu delloo ginnaaw élection yi